man aw ma leen digal docteur ñetti fan kii nga si woo sa téléphone ni ma day ngay ci sa bu la kenn dégg ci si dëkk kon man war naa laa digal xale bu na ko digal man war naa laa digal nga ñaar rek benn baat ci ñaar yow bu ñu tëdd on s'en fout matériel dafa métti moom yow moom yaa yar Fatou Laobé yaa roy yar Fatou yaa war a njëkk a wax ñëpp donc tey lan nga yëg. di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar yéen ñëpp di ñaanal jàmm di wax jërëjëf Serigne Touba di wax alhamdulilahi rabbi alamin Fatou lii lañ ko doon ñaanal xale bu am jom la bëgg ndayam ku fonkoon ndayam bëgg njabootam bëgg baayam yàlla na sëy am barke ci barke Seydina Mouhamed. yow yow référence la sëy toog ci néegu sëyam di sëy donc am nga ci expérience am nga ci ay astuces yoo xam ne boo ko joxee moom day téye néegu sëyam tey la nga ko euh, du ma ko jox benn question parce que moom du toog deux jours te woowu gën maa ñaax ci sama sëy te sëyu Fatou Wade ñoo doon bokk benn lal benn lal. tëdd nañ benn lal 12 ans 12 ans daf may woo ba léegi dima xelal sama sëy kon man du ko xelal parce que moom xam na li ko war def te xam na li koy xaar te xale bu am jom la bu bëgg sëy du farantu Fatou Waré du farantu bu bëggee rek bëgg na kon yàlla na sëy bi am barke barke sëy bi moo tax na nga am yëg ci nit ñi na nga respecté nit ñi na fonk nit ñi bul xeeb kenn soo ko defee foo wootee ñu wuy la man wéruma dama feebar mais damay soox ñëw. ni nga ko waxee foofu laa doon bëgg a ñëw yow da ngeen a nekk 12 ans ku xam Fatou Waré ci ndey la ko xamee ca Gazelle nga yar ko muy sa rakk di sa doom tey boo nu doon wax ci moom kan mooy Fatou Waré vrai c'est parce que boobu ba léegi témoignage bu nekk ñu ngi koy dégg. mais bu Ndeye bi dina am solo ndax nekk ngeen 12 ans comme ni nga koy ëpp na 12 ans 12 tëdd ci benn lal man ak moom di ko fanaan ci benn lal mais bi ñuy ànd ëpp na 12 ans xale yi ñu ngi rayontee ci waajur yi Fatou Waré lu ma ko mësaan fay lu mu guddi guddi da yóbbul yaayam ñëw tëddaat lu mu guddi da yóbbul mbaam bi ma ca àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana ñëw tëddaat xale bu am jom la bu am ambition bu am lu mu gëm gisoo yi xale yi nekk nii doo ko ci dégg doo ko ci dégg barke yonent bi doo ko ci dégg parce que dafa am loo xamante ne man Ndeye Gueye wax dama doon war ma waxtaan moom guddi ak bëccëg kon yàlla na ko sëy bi jëg papa day bëre papa day bëre maaji maaji maaji euh, day bëre dimanche bii di ñëw ah xam nga Ndeye Gueye ku ko xam moom papa rek léppam papa la dimanche incha la war a bëre. looy wax wax. na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed yàlla ko yàlla may ndam na ko ñëpp ñaanal na ko ñëpp ñaanal yàlla moo yor ndam yàlla ko yàlla may ndam te mu doon ko jik waaw noo koy waaje nu comme ni ko daan waajee rek man li ma war rek maa koy def waaw. dañuy gis Ndeye Gueye bu papa amee bis ni mu ciy def vraiment. sonn énergie alalam daraam di ko fekk. waaw c'est normal yàlla baax na yàlla baax na. papa nan lay waaje ndax xam nañ ne combat bii nu jëm nag. mu ngi ci la boo xam ne. mu ngi ci nañ bàyyi lépp ci loxo. na lu mu war a wane. fu wax am jëf fu jëf am wax waru faa bari. maas loo wax. mais gis nañ ko gis nañ ko gis nañ état bi mu yor macha allah moom bu bu ko ñëpp danañ xam ne liggéey na ci combat bi. mais nag mi ngi bëre koo xam ne. daanaan la te yàgg na ci am wax amatu fa yoon. nañ leen ko ñaanal ndam rek ci barke Seydina Mouhamed Medoune nuyu naa la de yaa maas xanaa di ngeen ma jox seen participation ci lamb ji balaa ngeen balaa may dem yow yoral nga ma 30 millions ma fayagul yow balaa nga may jox fay ma ba pare. Ndiolé Ndiolé benn bolo gu pied. moo ma xaalis di ma njëkkantu waaye garaawut. Ndiolé jëndal na papa benn bolo gu pied. waaw moom. ma ne jëndal na papa am na problème. ah. ndax lan. far daa far ndeysaan deret a foor bilaay deret a foor bilaay Médoune danga maa bëgg loo bëgg dafa sincère <laughs> eh sama rakk yi juru làmb ja nogoy ngoom Séeri Babacar kër ga lay maam Dumbe sama doom kee kee mooy Amina Cristal Amina Cristal wax ko mu xam naa doo jënd bologu billet. après xew naa nag ñu ngi may wooyee fépp. waaw yow doo xewi looloo ñu ngi doon laa bëgg. macha allah kontaan nañu. eh kaay leen ma wax ñaari baat. kan. looy wax. barke sëñ Tuba maa mujj. <laughs> waaw dëgg la buy bi baal naa.